bokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal suñu diggante ak suñu boroom ak suñuy diggante ak suñu moroomi jaam yàlla nanu yàlla dindil li muy wax ne balaa kenn dugg aljanna dana ko tàggale ak moom yàlla nanu ko dundil fii ba suñu dugg aljanna bu mu am benn charte di ndokkeel bokki jullit yépp ak murit yépp ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk rawatina bis bii nga xam ne moom la ñuy séentu te jullit yépp bokk ko muy guddi gi nga xam ne ci la yàlla wooye woon jaamam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy teraanga joo xam ne kenn fekk ko ci moo xam muy ay nawleem yi ko jiitu woon di ay albiya ak i mursaloon waxuma la bim ñëwee ak tey ci moom lay tàmbalee ci moom lay am ñi yàlla daan yónni ñépp bu leen yónnee bañ ba xamal leen ko ba jox leen bataaxal bi saa bu amee ci ñoom yitte day yàble ci ñoom foofa jaar na fa ak sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahir wa rijza fahjur wala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir waaye yaa ayyuhal muzammilu qum illayla illa qalila qum illayla illa qalila yaa ayyuhan nabiy yaa ayyuhar rasul balligh maa unzila ilayka min rabbik fasna' bimaa tu'mar yooyu yépp ndaw mooy ñëw ne ko sa borom nee na laaj nañu ko boo koy jot nu muy demee mu ne day jekk ba yàgg rek mu mel ne as miir su ndaw su ko dikkal waaye su miir ma dañee la ko kooko doon wax day mel da da ko koy sol day leer ci moom naññ ni ko rëddi baaraam leere waaye léeg-léeg mu ñëw doon jëmm joo xam ne da koy xam jëmmi diw sàngam jëmmi diw sàngam jum xam ñëw gi muy ñëw ci moom te bari ci la mujj xame ne ku koy làqoo la waaye du moom léeg-léegi mu doon jëmmi sayidna jibril joo xam ne day doon melokaan wu mën a gis rek sallallahu alayhi wa sallam waaye guddi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab am na ñuy tagg rajab di wax ne mooy wen weer fi mu nekk ku fa duggoon liy dal kuy jaaru dana ko dal ku ku liw bay kof-kofi bu duggee fu tàng jër nis tuuti danañ buñ ko laajee luy ab liw du ko da koy fàtte ndax tàngoor yu mu jaxasool moo koy waral waaye ku amoonu tàngoor it ba ñaq way gas-gas yi bu duggee fu sedd it nis tuuti foofa walla ko ñu ne nag rajab bokk na ci li ko tax a rëy lool daa nekk ci diggante jumaadal axira ak chambaan jumaadal axira am na nattukaay yu rëy rëy yu ca am yoo xam ne tey di waxtaanam maanaam dinañ ko dellu si waaye chambaan rawatina waaye nag jullit yi moom dañ cee am seen xàmmikaay mu ci ñaar fukk ak juróom ñaar guddi ñaar fukk ak juróom ñaar ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci am néeg gannaaw ñiy weddi léegi dañoo bari ba am na ko weddi alxuraan ci ay bis bi ñëw ne ko kaay wuyu sa borom ci tënk rek moom rek moo mas a am kaay wuyu ja kaay wuyu sa borom ci ay nawleem mu dem joxe ay firnde yu leer yoo xam ne ba mu xëyee dañoo yenn ñaar fukk ak juróom-benn guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar. ca yoor yoor ba muy nettali li xew biig am na ca ku ca jëlee ndomb ak tànk goo xam ne ba fi mu toll nii mi ngi ko takk muy Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu ba mu ñëwee ca pénc ma ne leen ku leen waxoon ne wax wax yu bari yoo xam ne daal ba mu ko waxee dañ ko ne yow la wax ñu gëm ko ndax bi muy laata tudd Seydina bi muy laata tudd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhammad al amin waa Makka nanguloon nañ ko ko muhammad rasulullah door caa topp sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko loo wax gëm nañ ko mu ne demoon naa fu ñuy wax baytul maqdis démb biig ci guddi ñu ne ko français waat mu ne waaw ñu ne ah kon de kii man na ko daal di woy Seydina Abu Bakr ne ko sa waaje waxati naa mu ne lu mu waxati ñu ne ko nee na demoon na baytul maqdis démb mu ne lu mu wax dëgg la gëm naa ko ñu ne ko waaw ñun ñii di wax ak yow am na ñu xam nañ bu baax baytul maqdis min nañ mbeddam ya ak péncam ya wax ñu boo jógee Madina di dugg baytul maqdis nooy jaar mbedd mu ci gën a jub mu ne mbedd sàngam ñu ne ah loolu moom am na woon angal bu ci tegee mu ne angal sàngam lu nekk ci sa ndeyjoor mu ne garab sàngama nga fa nangama nga fa nangama nga fa nangama nga fa nangama nga fa ba mu àgg ah wax dëgg neexul ba neexul nag waaye nii mu waxee dëkk bi moom na la demee moom te booba carte carte carte yi ñu defar di ci xamle ab dëkk amagutoon nga xam ne Google Earth amagutoon carte yi ñu map yi nga xam ne moom la ñuy doxe ci ab dëkk di xool ab tëli yor sa oto di dem ba ba ngay àgg fa nga jëm amutoon loolu kéemaan la woon mu soog leen a wax ne nag jógewaat naa fa dem fu gën a sori Abu Bakar ne lu mu wax dëgg la de gëm naa ko te abu bakrin siddiq yaar yooyu ñu boole tur yooyu da koo dab abu bakr li ñu ci jublu mooy bàyyi soxna xadija lañ ci dàkkantal naan doomi bàyyi xéeg ba moom lañ ci jublu as siddiq mooy koo xam ne lu yonent bi wax rek nee na dëgg la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam fekk dañuy jàmbat ci seydina abu bakr li ma ci bëgg a waxtaane rek mooy am solo gàddaay gi te am na waa ji wax ne wérut te ay ma jàng léegi alxuraan la Seydina Abu Bakr taarix nettali na ne ku masaan jàkkaar lool dana jafe lool nga jàkkaarloo moom di wax ndax daa am lu mel ne xeetu gémmiñ la doon jóge ci moom bi ñu ko laajee sallallahu alayhi wa sallam daf ne xol bi moo dee ci xalaat yàlla ba nëb di xeeñ guddi googu yi ci la yàlla waxee ci alxuraan ne yàlla subhanahu wa taala woona ab jaamam xaaju guddi mooy rañaan mooy fekk nit néeg ba nit ñi tëdd nga jóg di dox di tukki loolu mooy rañaan jóg ci guddi gi su dee digg bëccëg mooy jànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci ay riwaayaat yu wuute tukki ba lépp sant na ci yàlla neex na ko bége na ko jànge na ca lu bari daanaka lii am ci àdduna lépp tam di ci xupp nit ñi ak di leen ca bégal yàlla wan na ko ci tukkeem boobu ba wan naa ne ko aljanna ak sawara na mi mel waaye nee na la ko ci gën a neex daal loolu ci la gaay yépp di rawante muy abd bi ko ci yàlla waxee jaamam ba te ñépp dañuy sikk dañuy def nii ci seenam xel ba xam yàlla nangul na leen ne ab jaamam la ñoom de nee na loolu bokk na ci li ko gën a neex ci tukkeem boobu ak xam-xam yam fa jële yépp ak daraja yam fa jële yépp ba tax sëriñ bu mag bi di wax ne lahu manaqib lahu ajaib lahu garaib bila intihaay boroomi may la yoo xam ne lañ ko may mësee su ko may kenn te desu ko may kenn boroomi kaawtéef la ay kéemaan yoo xam ne kenn mësu ko am te keneen du ko am waaye am na yu tumuranke yu ko yàlla defal yoo xam ne mësu ko defal kenn te desu ko defal kenn bokk na ca weñ weñ du dal ci jëmmam ji weñ du laal jëmmam ji weñ ñi di naaw buy dox ci aw naaj moom ñim àndal ñépp aw niir day tolloo ñoom di leen kanam waaw naaj du tàng ci moom moo xam mu sol aw dàll wala bañu sol aw dàll yenn yi doxee doxaate itam nit di ko faxas dawu ko laal da ko wormaaloon sëñ bu mag bi ne xadd baata yasri min baadi tuhri mu diima bishri fil ambiyaay rañaan googu wér wér ñun ku mën a doon ak diplôme bu mën a am ñun bu Sëñ Tuubaa waxee déglootuñu waxe kenn doy nañu sëkk ndax xam-xam mbind dana ko wane waaye li gën a wér ci ñu ne xamoon na nangam mooy def na nangam sottal na nangam ñu gis ko ñi raw ci àdduna bi sax léegi ci wàllu rawante dong dong dong ci kër-kër soo ñëwee ne jàng naa nangam dañ naan la déedéet ñun xam mën naa nangam lañ bëgg a dégg léegi su fekkee jàng nga ko am defal ñu gis loolu mooy xam-xam li Sëñ Tuubaa sottal néew na Sénégal bu ko sottalagoon bu ñuy war a déglu may wax ak ñoom dara ñu ne Sëñ Tuubaa wax rek wér na sural amini ma al amin fawqa al amini l asfiya qad qaddamuuhu id waajahuuhu waxtaramuuhu dawi naqaay wa saada fihim wa baana anhum wa siina anhum baada irtiqaa'i am na geneen xasida gu mu wax ne qad baata yuxriqu ittibaaq fi lleyli qaasida wifaaq والأنبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعظموا لقدره المحترم تواضعوا إذ عرفوا رتبته وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرها sadran li shukri ni'am gannaaw ñi yàlla yónni woon ñoom ñépp yàlla jox leen lim leen jox ñii di ay ambiya ñii di ay mursaluun ñoo ko jox ba wu cër sëñ bi keneen ku ko xañ itam yàlla jox na ko lim koy jox ba noppi loolu mooy rayaan gi jóge Makka dem Baytul Maqdis ak la fa xew waaye sëñ bu mag bi ne fa gaaba anhum وارتقى فوق البراق للقاء حبيبه واحترقا حجب الإله المنعم ثم لداره انثنى وقد حوى كل منى منه وأذهب العنا وجالبات النقم dem na ci guddi gi jóge Makka dem daaru Baytul Maqdis jóge fa jàll lu mu ëndaale julli yi julli yi nga xam ne ci la ñuy àtte ab jullit ci la ko ko yàlla jox te bokki julli di bokki julli yépp maanaam arkaan yi nga xam ne julli da caa bokk ñuy juróomi arkaan yépp yàlla daa yabal kam yabaloon ñi ma ko waxe woon yonent bi ne yàlla nee na jëmmi lislaam yépp yàlla daa yabal ndaw mu jàngal ko julli di ci kanam yonent bi ñépp fekke ci jataay mooy xadiisu Abdullah ibn Omar wala xadiisu Omar lan mooy lis lan mooy iman luy lislaam luy lixsaan ba mu àgg waaye guddi gi nga xam ne ci la xewe woon yàlla mooy tontu waajoo gi doon wax nee na moom gisut ci alxuraan fu yàlla wooy yonent bi mu jóge baytal maqdis jàll tudd naa li Sëñ Tuubaa wax léegi doy na murid yi waaye mi ngi ci alxuraan bu jàngee woon najmi izaa hawaa ji ma jàng léegi ba àgg ci wa huwa lim yàlla giñ ci biddiw bi ñuy wax dalluñ dalluñ bari na mag ñoo xam ne dañ ko daan dañ ko daan tiital seeni gone ngir bañ ñu guddee ci biti ngir bañ ñu guddee ci biti te moo ne su leen ko ragal loo bañ ragal ko moo leen di jëkk a fatu te dëlluñ kenn musta essayé na naa ko jarabu ba xam wér naa am wérut waaye bañ ne borom kër gi tey ngaa xool ba xam nu muy mel dana mar dem si laa xawla wala xawla yàlla tere fekk li tax yàlla di tudd al najm ak al asr ak al leyl al shams al qamar dafa am ñu ko daa jaamu ñoo xam ne qamar mooy seen yàlla ñii shams mooy seen yàlla ñii najm mooy seen yàlla waaye da leen di wan ne loola du yàlla wa najm idaa hawaa biddiw boobu ñu fonk loolu ba am ñoo xam ne moom def mu yàlla day fekk day fekk ak dañ moom la Seydina Ibrahima doon xalaate yàlla ba far génn ca la waa dëkk ba nekkoon فلما رأى الشمس بازغا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ba ca yàlla di giñ dafa amoon ñu ko ñu ko defoon tegoon ca foofu ñu ko tegoon mu di leen fekk ca lañ xam waaye yàlla moom biddi yi moom lépp nu mu ciy gëjee waaye da leen doon bëgg xoolloo fenn bañ nangu bañ nangoo xool mu wan leen ne leen kii li mu leen di wax lu wér a wér la dara jotu ko ñi naan daa ànd ak daa ànd ak sa koom ak gaa yee ko jàpp ak yenn gaa yi mu leen yenn gaa yi jàpp reggu raar rek bari na gént yoo xam ne boo koy nett lu ñoo daa regg raar waaye yonent bi gént ko abd asra bi abdihi nee nañu abd du ruuxu kese kese waaye yaram beeg léppay doon ànd doon abd doon abd abd suñ ba suñ tubaa ne bil jismi jahra ndax ruux ruuxu kese kese du du dem di di xàmmee ay mbedd ak i immeuble day ànd ak gët akum xel suñu boroom ne waxam ji lu mu nu mu mën a toll dara jotu ko ku ànd ak sagoom la ndax du waxee bakkanam nit la ni yéen waaye léeg-léeg day am yu koy dikkal yoo xam ne du leen dikkal te ki ko koy indil ak ka ko koy ka ko koy yónni si moom kenn tàgguwu ak sagoom ñoom ñépp ñi ngi ànd ak seenum xel ak seen kàttan su dul xuwaa nee nañ mooy jibril ba mu koy jox la mu koy jox nag ak di ko won la mu koy won booba yonent bi huwa huwa huwa bil ufuqil a'la ma nga ca kawle kawle kaw fa gën a sori ca kaw dem na sax ba jege yàlla jege jege yunu ñaari bant fet fil gi dox seen diggante ñaari bant yooyu noonu ñu jege nee na dem na ba jege ko yàlla yàlla wan na ko fa ci ay kéemaanam yoo xam ne mosu ko woon kenn kubra bu ko yàlla jëfandikoo jéggi na dayo daan na woo xanaa nit lu mën a mën a mën a werante sëñ te waranteeg nit loo xam ne kooko dane maa ko gis te moom gisu ko moom da koy dégg kooko ne ko maa ci teg sama bët xanaa loolu moom wax dëgg yàlla warante waru sa mën a àgg guddi googu nag ni mu toll ba yàlla yàlla dakk ko dakkut guddi googu xamoon na ko yàgg yàlla du tàndale dara xamoon nañ ci guddi googu lay doon ci la ci lay jote ba mu ko joxee julli moom yi nag ba boobaak tey fu jullit nekk saa bu waxtu jotee mu julli ko yàlla na yàlla na yàlla nangu yépp yàlla daf cee xéewalewaat murit yi sëñ Tuubaa da ko ci da ko cee indil ku ñu tuddee sëriñ Fallu Mbàkke kon li li ñu wax ci sëñ Fallu ci weer wi taroog léegi doy na waaye yàlla ba mu dalee yónnee ba léegi saa bu yónnee kenn ba nit ñi di bëgg a tàmm la mu yónni woon kooka ndax bis bu set ñam sàngam rek bu yàggee danañ woote bis am ñu ne man de baax na ginnaaw bu dee nangam baax na loolu moo waral ñuy soppi cin léeg-léeg nit ñi di lekk-lekk yu wute moo daa waral léeg-léeg yàlla yónni kenn koo xam ne day wut mën naa wuuteeg ka jëkkoon a ñëw aw tur ak ku sant waaye lu cin wut lu luñ soppi soppi cin ba léegi cin mooy togg dañ koy booleeg ndox ak sawara mooy mooy mooy misaal bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ba mu fi jógee ba tey yàlla day yebal ñoo xam ne ci jaamam yi la ñu nekk deesu leen wooy ay yonent waaye boo seetee seen njariñ ci kaw suuf dañuy mel ne jant bi rek jant bi njariñam doonut li leeral nit ñi ñuy dem rek fi ñu bëgg dem dem waaye jant day dund day dundal nit ñi ñiy gëstu xam-xam yu yees yi nee nañ li tax ñun Afrique ñuy dund ba léegi du dañoo am lu ñuy lekk moo ñu tax a dund amuñu manqué nañu ay vitamine manqué ndox manqué lépp waaye jant bii nga xam ne moom lañ am fukki weer ak ñaar ci at mi bokk na ci li ñuy dundal yàlla dafa jant bi gën a yàgg waaye ñooñu yàlla tànn it boo leen nattee ci ab ay biddiw day mel ne mag ñi bu jëkkoon ba léegi si ñi ngi jàngale xam-xam yooyu xam-xam yooyu jàngale bu guddee biddiw nooy xamee fa penku féete ak sow ak foo jóge ak foo jëm ndax biddiw yi faw penku la ñuy féete bu marax maasee bu guddi jotee ba gën a guddi barab sàngam la ñuy féete loolu ku toog sa kër xàmmee biddiw yi fi muy nekk bu jant bi sooyee ak bu guddi gënee sori boo dox ci àll bi da ngay daal di xam sa kër fan moo la féete bëj sàll wala bu ganaar ay tegtal lañuy doon waaye li tax waxtaane mag ña am am solo li ñuy taseel ci jamono moo koy waral ndax nit ki bu xamut fu mu jógee soo taseek moom boo bu xamut fa mu jógee xamut fa mu jëm wala mu xam fa mu jëm xam fa mu jógee ba yàgg mu réer ci àll bi ku mu taseel rek soo ko ne kaay ñu dem mën na laa topp soo ko ne kaay ñu dem mën na laa topp moo tax ñu war a def ci nit ñi ay ay màndarga yoo xam ne xa ci nit ki ay màndarga yu muy xàmmee ku mu war a topp ak ku mu war a topp waxtaane mag ñi nag dana ci dimbali nit ñi lool ndax foo xam ne nit na nit jaar na fa jàll ci jàmm te nga bëgg a dem fa mu nekk jaar fa mu jaaroon la la cay dimbale mooy xam ci moom lu lu leer nañ loolu nag moo waral suñuy dox ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge fi ñam àndaloon ñépp jóge fi booba fi mu toll ni ñii gëm naan ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab muy kazu rajab ci la yàlla rañaane woon yonenteem ba jëlee ko makka yóbbu ko ma di baytul maqdis jëlee ko fa yóbbu ko mooy mi'raaj ci kaw ay gaay yoo xam ne mën nañoo am sax turu jullit lañ yor ndax ki ko doon wax Omar la tudd waaye Omar ibnul Xattaab ak Amr ibnu Hishaam ñoom ñëpp muy Abu Jahal Omar ibnul Xattaab bi muy laaj dugg ci lislaam Omar la tudd waaye bi mu duggee ci lislaam it Omar la ko la wéy di tudd mbaadu Omar mii daa jël Omar ju jëkk ja bale Omar ñëwagul ci lislaam tudd noona ndax ku dem ba jël alquran ne ko jàkk ne gisuma ci fu yàlla waxee ak jullit na yàlla yoon rañale na jullit yonent bi subhanallah sa ne ne fanga fangaaral mu ne gisuma ci alquran fu yàlla waxee ne yonent bi jógee na baytul maqdis dem ci kaw mu jox ko fa julli juróom xanaa jàngur war naj ni bari na ay aayaat yu ñëwaat di feddali loolu te mën naa am sax fa mu nekk kenn du ko fa foog yu bari la waaye li mu wax moo gën a metti daf ne alxuraan daa bari ay erreur ay njuumte njuumtal kan njuumtal kan waaye nee na faatixatul kitaab bokkutoon ci alxuraan fi la ko alxuraan fekk nee na qul huwa allahu ahad dañ ko war a jëlee ci alxuraan ndax bokku ci nee na li yàlla wax ci alxuraan ne yonent bi jàngut moom gisu ko ci alxuraan li ñu koy tekkee bokkut ak lim doon te moo ne alquran bu ñu ci demee huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum rasulan minhum nee na ummiyin jooju yàlla jubluwu ci arab jubluwu ci ummi yi maanaam ku jàngut waaye li mu ci jublu mooy aw xeet yonente boo xam ne ci yéen la bokk yéen ñan xanaa moom ni ñuy xóotale làngu arab ci leer wax ji rasulan minhum ak laqad jaakum rasulun min anfusikum ak ak isbaasa fiihim rasulan min min anfusihim waaye nee nañ du jàngkatu alquran nee na arab la jàng arab ci fan te moo ne ki ñuy wax de diplôme fi diplôme yam la la la diplôme boobu la yor agrégat agrégé waaye moom agrégé boobee daa far soppaliku agresseur waaye ki muy agressé nag yàggees na ko agressé waaye kenn mësu sa jël ndam annabiyu l ummiy allazina yattabicuuna arrasula annabiya al ummiy allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil yaamuruhum bilmaaruf wa yanhahum an almunkar wa yuxillu lahum altayibat wa yuxarimu alayhim alxabaais wa yadacu anhum israhum wal axlaal allati kanat alayhim wax siñ bi loolu su fekkee yow jàngu arab xamoo ab ummi yi lu muy tekki loo dugg ci alxuraan ak loo ci leeral dëkk ba musta dem noo koy nammee te am na beneen aaya buy wax ci alxuraan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya ahsan illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billadi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum waxid wa nahnu lahu muslimun yàlla nee na yonent bi am na ci yoo xam ne jëru tontu yàlla waaja xam na lu nekk xamoon na ne ku ñuy wax professeur Sankare am na ñu ko naan Sankar Sankar mooy doomu guro boo xam ne yàqu na génne pañam guro bi sànni rek boo dajee teg ahlul kitaab mooy ñi gëm dara ñi gëm dara mooy ku gëm diiney Seydina Muusa ba tey jii nekk ca yam ca képp dugalu ci ay waxi boppam dugalu ci waxi keneen wala ku gëm téereb Seydina Isa te yam ca képp se seen liggéey jeex na tàkk waaye bu leen ne li ngeen nekk du jaamu yàlla laa tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan bi ghayri ilm dee la wax ak boroom xam-xam bu jub bu gëm lam nekk booy wax ak moom na nga wax ak moom werante ak moom ca nam gën a rafete ci ay teggin ak lu xam-xam mën a dégg waaye nag bu ci waay jenn waay jekk-jekkee na tonet koo xam ne nattuñ ko ca nattawaayee ba mu feesal su boobay mu jaadala dagan na fi mu na yonent bi jàngut mi ngi ci aayooyu ci kanam wa ma kunta tatlu min qablihi min kitaabin lu jiitu alquran yaag ñépp a yamoon rek ñam taseloo nit lu jiitu alquran ñoom ñépp a yamoon kenn xamutoon kenn mënutoon a jàng bind ñi doon bind sax ci jamono yooyee néew nañ dañ leen di wàññi yonent bi bokku ca woon ma kunta tatlu min qablihi min kitaab ma kunta tatlu min qablihi min kitaab mënu woon a jàng lu njëkk alxuraan xamoo woon xamoo woon mënoo woon a mënoo woon a jàng tilaawa mënoo ja mënut a jàng mënut a bind mënoo ko moo tax mbind na nga ci tey ndax soo soo bindee rek bind moom ku ko def mën ngaa juum ku ku bind rek yàlla ku ku koo xam ne yàlla natt na ko ca ba muy bind rek ba muy bind rek yàlla maandu na ci yàlla du ñu wax yàlla mun mënu ko saa musul waaye yàlla day maandu ci moom ci ay njuumteem ndax ku bind faaw nga juum. ku bind da nga ko war a nit moo mu xool ko topp ko wala taxutu bi yaminik idan la tabal mubtilun bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa alzalimun am na fu mu ne wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun léegi waa ji dafa laal pas-pasub jullit yi ndax dañ ko ko war a jéggal déedéet loolu desu ko ko jëggal ndax ñun ñi gëmoon ne sëriñ Fallilu Mbakke Kazu Rajab la gane àdduna ba am ñuy wax ne suñ falloo ne yonent bi dafay jóge ci suuf jëm kaw ba muy ñëw ma ànd ak moom wàccaale waaye dàq na loola kon dàq na amuk suñ fallu gi maanaam suñ fallu amut moom suñ fallu amut ndax guddi googu amut ginnaaw guddi gi amul moom suñu fallu ci la ñëw guddi gi mën suñu fallu mënta am waaye niñ ko dàkkantale moo yées yàlla ñu ci yàlla musal dañ ne ab sengoriste la sengoor mooy taalibeeb sengoor kuy sengoor dañ ne ku gëm hellénique helléniste la helléniste mooy mooy ku gëm grec yu jëkk ya grec yu jëkk ya grec yu jëkk ya ak yu mujj yi lu ñu andil dara ba tey jii ci àdduna si ñu dund nii tey ci mois de mai bi réew mi ñuy wax Grèce te ay te ñuy làkk grec Union européenne bépp ñoo ci gën a ñàkk ñoo ci gën a ndóol ñoo ci gën a nekk ci jafe-jafe ñooñu ana lu ñu leen toppe ñoon ana lu ñuy wëlbatikoo di topp ab grec boo xam ne bii tey jii tey rek moo gën a ndóol ci tubaab yi ñoo ci gën a ñàkk ñoo ci gën a sonn bis bi sax ñu taal ay ay ay ay pneu ci mbedd mi lakk ay bitig ndax lan amuñu luñ lekk amuñu luñ naan kooku nag nee nañ grec grec la gëm ak Senghor kuy Senghor Senghor la ñu wax ne yee moo doon xaritub Sëñ Fallu déedéet déedéet wala boog Senghor dana dugg ci lii aaya bi alxuraan wax al axillaau yawma izin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin Senghor mënut a xaritoog Sëñ Fallu daa am lu ñu seqoon dong kenn ku nekk yaakaar ci sa moroom ne mënal na la lii te mënoo koo ñàkk te njariñ la Senghor moomee la ay tànkam doon bari bari Tuubaa Sëñ Fallu nee na ko kaamil bii kaamilam bii laa bëgg mu mëlal ko Senghor na ko ayca ab téere laa bëgg nga mëlal ma ko ku ma ci dimbali ba mu tasaaroo Senghor nangu ba ko Sëñ Fallu wanee téere bi mu ne ko xanaa du alxuuxaan mu ne ko ah kay mu ne ko sëriñ sëriñ bi kii du ma ko laal du ma ko jege fenn kooku taalib Senghor la na ca sëriñam ba maandoo nag ci alxuraan ba du ko laal da caa waroon a maandu léegi nag nit ñaa ngi naan nañ ko jéggal waaye kooku du ku ñuy jéggal du ku ñuy jéggal kum neex mën ngaa dugg ci lislaam kum neex mën ngaa génn déedéet du kum neex génn nag wala sooy génn da nga koy fas rek waaye soo ko biralee yoon teg ko ci sa kaw waxuma laa nga dal ci pas-pasu jullit yépp ci àdduna bi ba yàlla waxee ne alxuraan moo ko wàcce te moo koy sàmm moo koy aaral boppam daf ko wutal ay yoon yi ñu koy aaree ko sàmm man mi am naa mbokk moo xam ne daa ñëw ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa leeral na nu ñuy sàmmi alxuraan nu ñu ko aaree ba ba foo dem ci àdduna bi alxuraan ci jann ji la moom rek moo ko am ci téere bu ma sa jógee ci suñu borom da ko ne noo def ak alxuraan mu ne ko mën naa koo wax te duma ko gis mu ne ko mokkal la mu ne ko mën naa ko bind te duma ko xool mu ne ko wattu la wattu inna lahu la xaafisoon ci ay nit lay jaar moom kaamil yi ne ci àdduna sépp neenal na ko ndax lan diw nee na ca grec yu jëkk ya diw nee na ca égypte yu jëkk ya diw nee na sengoor nee na sengoor nee na ay yàq fenn yoo xam teguwut fenn lii nag képp koo xam ne diine moo ko fal am na yan am na yan bu diis diine ku ca génne alxuraan dara desatu fa ku ca génne alxuraan dara desatu fa alxuraan ku dégg diine yaa war a jiite àdduna te alxuraan nee na ñetti tomb rek la am dalay wax la xewoon démb nga xam noo cay def tey ak suba luy xew ba nga mën a xam tey ji ni ngay def ba xam dana baaxat wala du baax waa ji nag nee na alxuraan ji bokkut ak dañ doon jàng def ba fi yonent bi nekkee te indiwut jenn alxuraan juñ doon jàng ba fi yonent bi nekkee nee na alxuraan am na saar wu ñuy wax suratul ibil bi ñuy bind alxuraan ji lañ ko dindi tas aayaat yi dugal ko ci yeneen saar yi ci des suratul ibil guléet suratul baqara am na suratul nisaa yi am na suratul maida ak suuratu suuratu suuratu suuratu ba mu àgg waaye suuratul ibil moom mbaa dafa xool afala yanzuru ilal ibil rek mu neex ko ba daganal na moom ne alxuraan kum neex du sud nangooti ñi ñi nekkoon ci daara yi dong di ko firi nu mu leen neexe waaye ñoom ñu newut ci daara yi te xamuñ tënguñ araab bi tam ñu leen neex lañ koy firee déedéet na loolu la daganal léegi maanaam kum neex firi alxuraan nee na bëgguta bëggu cee waxtaan nanguwu cee waxtaan nanguwu cee warante ak dongab daara nangu cee warante ko sëriñ nangu cee waxtaan ak kenn ku dul ku ñuy wax Abdul Aziz Kebe nekk université ak Rawaan Bay nekk université waxaan loolu ma ay caaxaan Abdul Aziz Kebe ak Rawaan Bay war nañoo weddi bala ñu leen jox ab àttee moom ndax ñoom la def wéeruwaay fi mu nekk nii loolu kilifa yi diine ci Sénégal yépp war nañoo wàcc ci mbedd mi moom jullit yépp war nañ koo wër mën nañ koo bañ a dàkk nag waaye ku taseeg moom sañ naa jëflante ak moom man mii kenn laaj kilifa yi diine yépp war nañoo wàcc ci kaw mbedd mi laa la wax doxee fii bu fekkee Ndakaaru la nekk ñu fekk ko fa bu fekkee France la nekk ñu fekk ko fa te moom France moom mu doon français moom mu doon jàng ba am ca agrégation ci naxwu at tubaab grammaire mooy la Senghor amoon rek am na ku ma wax léegi ne ma loolu du xam-xamu dara mi ngi mel ne ku jàng arab mën a way xam bu xur yëpp ak fu nuy way yëpp ak balaaxa ak bayaan ak lépp mu dajale ko te jàngul alxuraan gëmul alxuraan lu mu jotee lu mu jotee alxuraan araab la jàng waaye jàngul al waaye jotuwul alxuraan dara alxuraan diine la alxuraan diine la moom moom ba mu amee agrégation boobu yi daaw wala daaw jéeg France ma mu doon jàng ba mu fa bëggee dem dañ ñëw lànk ne ko duñ la may visa. so soxlawuñ ko maanaam France soxlawu ko mën naa am yu mu seetlu ci moom ba soxlawu ko ku France soxlawul nag ku France soxla sax amul njariñ waxuma la ku France soxlawul am na ñu ko jàngate ne daa bëgg a siiw daa bëgg a dem France dëkki fa ndax jeexal na fii ba noppi li mu fa waroon a liggéeyee bëgg bu waxee lu ne jullit yi wër ko rëbb ko di ko seet mu ne France làq leen ma wala Amérique làq leen ma loolu daa jar ngañ alxuraan sëñ Abdou Xaadir Mbakke dañ ko boole woon ak imaam Xumayni ne ko Xumayni day rey nit ñi day rey ay jullit sëñ Abdou Xaadir atte ko ne ku rey ab jullit te tay ko de moom waman waman yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu adaban adima Salman Rusdi lam def yées na lool li waa ji def ndax waa ji dafa taxarif alquran dafa ŋàññ alquran da ko weddi pas-pas yi si jullit yi gëmoon yépp weddi na ko Salman Rusdi ba mu waxee la mu wax ci alquran ba ñu wax ko si ba ñu wax ko ba imam Khomeini ne ku ko rey at mu jot daañu la jox juróom fukki junni dollar kooku bu amoon téeméer at at mu danañ ko ko jox bañ ko waxee Sëñ Abdou Khadir ne ko fatwa bu mel noonu la Khomeini def dana Khomeini kay moo fi gën alquran moo boolewaat Sëñ Abdou Khadir Khomeini ba bi Khomeini faatu Sëñ Abdou Khadir nee na fii ci jumaa ji nañ ko ñaanal moo ko Cheikh Outouré lañ mas a dégg ku Sëñ Abdou Khadir nañ ko ñaanal ci jumaa ji kon alquran jooju yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ci lu nekk daawut fanaan ak moom ci benn lal daawut fanaan ak moom ci néeg da ko daan jox lal ya gën di ko sot lañ ko leen ya gën a seer di ko lalal dara ya darab ya gën a seer murid yi nañ xam ne professeur Sankharé moom yi ci seen kaw la dal ci seen kaw la dal ndax Sëriñ Tuubaa mos sa nangu lu dul alxuraan ci loxoom Sankharé neen la Sëriñ Tuubaa daan nangu ci loxoom du dara ak nen la kon imam professeur Sankharé moom mat naa sàkk pexe balaa fitna jur ci réew mi ndax professeur Sankharé professeur Sankharé li gën a cher ci nit ñi la laaw murid yi moom am na fu ñu war a jaar ak moom te yi xew ci réew yépp li koy indi mooy loolu rek dañuy dañuy laal pas-pas yi nit ñi ba noppi kenn du wax bu ñu ubbee rajo yi ubbi télévision yi it ak journaux yi wóor sa tax ñuy bàyyi lu waay neex mu wax ko bay laal pas-pasu nit ñi murid yi alxuraan dong lañ am bari na ñoo xam ne bu aw xew masaan jot bu ñu bëggee daloo dañuy bind kaamil yéen ab sëriñ mu jox leen ñu sol ñu sol ci la seen col aju woon am na ñoo xam lu ñu masaan di wut ci suñ tubaa suñ bëggee mu gaaw alxuraan la ñuy bind yéen ko mbooloo ngi ne woon mun a gàññ moo xam ne ci alxuraan la leen suñ tubaa di dundale Sankharé xawma Sankar nee na loola moom li ko tàmbalee ñaar fukki fan ci weeru mee moom du dara Sankharé nag état bi war na cee jóg man maa ngi nekk nii Touba di waxee Touba état bi war na ci jóg balaa fitna juddu ci réew mi nañu ko sàkkal pexe ndax kat Nigéria la fi xew xam nañ ko Nigéria la fi xew xam nañ ko dañoo bëgg a dox seen diggante seen pas-pas dong ñu fipp lànk te su fekkee lu mel nii mi ngi am moom nit ñi jëriñootuñ dara ci kaw suuf ndax saxaaba yi daanañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jóg takk ab xare kenn ku nekk dénkaane waa këram wóoru ko ba xam daana del seem déet te daana yées lu mel nii daana ko yées kon li ñuy wax démocratie ak liberté de presse mi ngi bëgg a jàll lañ ko doon doye wax xalaat lañu waxoon waaye waxuñu daal pas-pasum nit ñi nag ak li li ñu gën a fonk ñu dañu ko ñàkkalal fayda ab journal woo ko di ko interview muy gën a leeral loolu nag moom buñ ci waxutit dana am ñu ci jóg ñoo xam ne duñ ne barab sàngam la ñuy jaar duñ ne bis sàngam la ñuy jóg yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp te bis bi ñuy séentu yàlla ñu ci yàlla àggale ak jàmm te lañ cay def tamit ay jaamu yàlla lépp yàlla na ko suñu borom nangu te sëñ bii nga xam ne moo fi taxawaloon jàkka ji jumaa ji te dëkk ci dëkk bi it ñu bàyyi ko xel ci ñaan wala ji baara yàlla na ñu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaan يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين